bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamina asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa maa ngi yëkkati kàddu nuyoo ak kàddu ziar bu ma tibbee sama xol fu sore si sama xol di ko jottali sunu sëriñ sunu xalifa Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Bassirou Serigne Touba di ko teg ci loxoom yu tedd yi ngir mu jottaleel ma ko njabootu maam sëñ Touba yëpp di nuyu sëñ Amadou Makhtar Mbacké xalif bu Darou Khoudoss fi teew ak mboolem njabootu sëñ Touba bi nekk sa ginnaaw sëriñ bi maa ngi leen di jottali nuyoo yooyu ak ziyaara yooyu du ci boole sëriñ Bassirou Abdou Khadr Mbacké di sa porte parole di nuyu mbokk yi fi teew yëpp ak mbokk taalibe yi ak ñi fi toogal état bi sëriñ bi ñëw naa tey niñ ko daan defee at bu ne ñëw andil la nuyoo ak ziara réew mi yëpp ci bés bu màgg bi di bésu lislaam di bésu cheikhul xadim ñuy waajal màggal ki nga xam ne indi na fi ay ngeneel yu bare ci réew mi ci diine ji ak ci àdduna bi yëpp ñëw naa ànd ak sama soxna ànd itam ak ministre l'intérieur sa doom sa taalibe ànd ak ñëpp ñu fi teew ci turu nguur gi ngir ndokkale si la ci bés bi di sa bés ndokkale la waaye it sant la gërëm la surtout tey tànk yi ma fi ñëwee muy toujours tànk taalibe di tànk doom di tànk yi njiitu réew njiitu réew boobu nag jàpp naa ne ci coobare suñu boroom waxtu wi déwén bu ko yàlla dogalee keneen war na toog fii indil la nuyoo ak ziyaara réew mi loolu ci sama coobare bopp la ma jàpp ne yëkkati woon na ay kàddu laata ñu may falaat ci deux mille dix noon senegal boo leen ma wóoloo de joxaat ma réew mi fas yéene naa yemale sama liggéey ci senegal ci ñaari mandat yooyu kon nag topp wax jooju ak fonk ko moo waral ma yemale ko fii ne kon lii di ñëw fas yéene ci bokk waaye loolu du dindi dara ci diggante bi nga xam ne suñu borom moo ko def muy yéene ji am ci man fonk gi nga am ci man bëgg-bëgg bi nga am ci man te ompul kenn ci àdduna bi te ma xam ko it dëgg muy lu nekk ci biir ak lu nekk ci biti kon bu ma tolloo fii war naa ñëwaat seede àdduna bi yëpp ne man de sant naa la bu baax këram naa la bu baax ndax saa yu ma fi ñëwee li may wax mooy sëriñ Touba laa lay booleel saa yu ma ñëwee ak soxla Serigne Touba nga may booleel yebal ma ma dem ci bërëb bi ah boo mu booleeg sëriñ tuubaa nag mooy boole nga mag sa bopp ndox yaay sëriñ Touba te xam naa li nga nar si sa biir xol jëm ci man li nga nar ci senegaal yéene yu nga am ci réew mi looloo waral ñu nit dañu war di wëlbatiku di ñaan yàlla suñu boroom mu bàyyi la fi nga yàgg fi lool ànd ak wér ndax sa yàgg fii njëriñ la ci réew mi njëriñ la ci doomu aadama yi te it maa ngi lay dënkaat Sénégal di ko dënk kilifa diine yi ndax réew mi toll na foo xam ne ñi kilifa war nañ di yëkkati kàddu léeg di artu di sàmm ndax ku gis li xew ci Afrique tey ku gis li ñu wóor waruñ toog rek naan ñële la ñële la te seeni ñaan seeni artu seeni kàddu dana delloo ci xel yi loolu sëriñ bi lu am solo la euh, bëgg naa yow ak daal kilifa diine yi ngeen yokk sàmm Sénégal yokk di ñaanal réew mi ndax jàmm ji fi am mën a law mën a yàgg mën a yaatu ndax jàmm si la lépp xej ah man nag na ma la ko waxee woon bu jotee incha allahu rabbi euh, fas yéene naa fii ba ba may joxe lenge yi réew mi dinaa ko sàmm dinaa ko aar itam ci li nga xam ne moom la mu constitution jox ba nga xam ne benn yàqu-yàqu du duma ko seetaan muy ñëw ci réew mi li nga xam ne mooy lii sama wareef maa ngi maa ngi lay santaan nag te la gërëm lépp lu ma deful it ci liggéey bi nga xam ne sumb nga ko xëy na lu yàlla dogalul la waaye lépp loo yëkkati sama xol mooy jàppale la si bu baax a baax ci lépp nag te gis nañu it ngeen nga indi ci dëkk bu tedd bi di Touba. liggéey yu mag a mag yii nga fi sumb ba ci njàngale mu kawe mi muy daara bu kawe bi di université Cheikhul Khadim gis nañu yii ñu fi liggéey mu tombe ak sa xilaafa muy autoroute bi ñu indi fii ba ci Touba muy hôpital bi ñu am fii ci Touba tey hôpital Khadimou Rassoul ah ak yeneen ak yeneen ñu ngi wax ndox meeg loolu yëpp waaye Touba yelloon na ko te it ah, man de mbégte la woon ci ma joxe ndigal sama gouvernement lépp luy wareef ci dëkk bu tedd bi ñu def ko ndax dëkk bi moo ni moo ni toll kon mu des rek di sàkkuwaat ñaan si yow sëñ bi fépp fu ma dem yàlla mën ma fa jàppale e ma bàyyi itam réew mi si jàmm ak salaam yàlla aar senegal ndax jar na ñaan yàlla génne na fi xéwal yoo xam ne fu mu feeñ nag bu ñu góorgóorluwul rek dana indi safan waaw muy pétrole muy gaz waaye yàlla bu ci defee ñaan ñi nga xam ne it ñoom lañ fi bàyyi ëllëg ñu bàyyi xel loolu bañ a war réew mi li nga xam ne réew mi moo ko moom muy alalam su ko defee muy jàmm ci réew mi di jàmm ci askan wi loolu daal sëriñ bi ci gàttal laa bëggoon yëkkati ay kàddu sant la rek ak ngërëm eh, di jottali sant sa taalibe bi soxna Mariam di di la sant di la gërëm di sant mbokk yëpp allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa